aboneel bul fàtte bés notification bi ngir ngay am suñu vidéo

umpan pagne mi réew mi bari nay problème de alo anu, xew mu sénégal ci bu, mu bari ka ah. way yu ba ba kan, umpan pagne yu corona virus bi jaaxalu la wax nga de sama jaay moom mi lay xal boobu ba léegi damaa bëggoon dem marché mu ma xaar ma ngi dem ci àgg bi deux minutes lañ ma ñëwaat mais ba léegi gisuma ko umpañ ngir yàlla ngir sama nijaay yi téeku ci sama nijaay bala muy jek genn ci biti andi ñu fi coronavirus ah. sama nijaay dang ko wura koo warul di genn xana xamoo même man ni sax lo tax tay ma ma ma arrêté sama genn bi. mom lan ko mëna téré gennam mëno ci dara. ma nga def li ma mun. bo way mëna ma ma nga dem kër kër Ibrahima fii la ci angle bi te duma ma fa taxaw deux minutes lay am ma ñew mu génnaat même chose demaat. xam nga ni mom bu feebaree ya, ñun ñu fébar waaw wax nga dëgg. te coronavirus bi dafa doy war ka tiit naa daal. te nag du balaa de xanaa xamoon yow coronavirus ñëwoon na fi ay jamono. ah. coronavirus. bu du jamono bii rek la fi ñëw de. coronavirus ñëwoon na fi jamono. mais booba jamono sama maam ko daan faj. léegi anam moom. waaw man sama maam. sa sama maam dee la. te amu ci kenn koo xamante ni ci ay sëtam wala ci ay doomam ku ko ci doom kenn doom ñu ko ci. ah déet. ma metti fi ne nii bu ma ko doon woon ba léegi tey jii woo naa président de la république dimbali ko. waaw ah dimbali sénégalais yi dimbali askan mi kay. coronavirus baa ngi bëgg a rey nit ñi. doy na war a te fi ne nii daa am doole de. ñi ni jaax lañ leen tiit na ah, lool. sama sama sama sama. yow de xam ku mën a tegoo. c'est xam nga engagé. man de moo engagé ma si. dem nga ma ñëw boobu léegi yow laa doon xaaraale sax. yow Cheikh yow foog nga nangou liggey foog nga nangou liggey bu baakha baakha baakha a dang dang ci ba sa jaay taar gi nga nekké sa solo gi cig cig bi nga nekké sa Cheikh la gënta men gi boo ko do dag bi la da ngay cagatu wala nga sax way defal ndànk nijaay nijaay ngir yalla dama la ko ñaan ngir yalla bu lay sañ na ko ngir yàlla nijaay mëno tok ci kër gi man sama toogee ngeen torox wan nijaay mi yow bo génnee ci lañu gëna toroxé boo génnee dem ñëw indil ñu fi jàngor feebaru coronavirus fan lañ jëm. wax na la dëgg de ndax fi ne man tiit naa de. kii kii moom rek coronavirus yow rek dèjà yow coronavirus nga am ndax seex yow bala maa bëgg a dee rek nga nga jël sa simis bi xot sa simis def sa tubay def say dàll ne nga yee yaay yow yaay yaay yaay yaa seex la gëntal meen yow doo dara yow seex doo tus xamal loolu kondaane kat nga bu doon bitig bi moo lay man lépp laa xam yoroo dërëm bu ñu waxee nga ñoddee kat taw yi nga mel gunóor. yow munoo yam. nijaay nijaay lan mooy sa problème ak man nijaay yow lan moo tax yow nijaay yow yow yow nga bañ ma lan la nijaay gis nga man gentleman gi ma doon dama koo dom dama koo doon ci sama yaay kaay ma xamal la sama yaay nettali na ma nee na ci samay nopp man moom ba mu ciy toll góor ñi dañ ko doon rang. moo tax yow doon na woo lu baax moo tax doon na woo lu baax. يوسف يا مي امال خالدي خلاص توجك سبب يوسف يوسف ابي ولا نعرف نبك نكتب لين ليفل بين ليفل واقف لا فين غادي يصب زورنال تك سيفي سيفي رندو ديري من ايغار توك مي يا يا يا لا جنتلمان دو دارا نا كورونا فيروس ما تجي اي دي صح ما فاتلي كيزا كورونا فيروس بوب خنا يقولوا يقولوا يقولوا لي ديسيجن ينجي ديال ينجي ينجي داف يوب والي خواتي كورونا فيروس ما مريو مكو خامو لول لوتا مريو مكو كورونا فيروس waxtaan naa ak benn waay waay gi nee nguur moo leen yabal nguur gi maanaam kër gu ne dinañ fa dugg rassemble leen dajale leen am nañ leen jox diiru weeru koor bi ba mu jeex tàkk duñu génn seen kër waaye ñoo leen jox dund ñuy añee añee di ndogoo ay ay fromage hier ay ay saucisson di ndogoo ay yàpp ay ginaar weddi weddi gis bokku ci looloo tax man jàng bi may jàng solo nijaay li ngay wax noonu mu ngi nii mu ngi nii sa quartier dugg nañ ci chef de quartier yi ñu def port à porte kër gu ci nekk ñu jox la sa xaalis mu ngi nii un mois maam diggante fii weer weeru koor bi commencé ba ni mi jeexee ñoo la yore sa dund ñu rien que rek pour coronavirus bi mais kon mais mais kon yow nijaay dans les normes kon yow jot nga jotaguma non loolu dugg na ci quartier bi mu ngi nii

ci donation un kër ku nekk da lay jox xaalis bi la neex nga la neexee nga jënd mu doon ñebbe bu la neexee nga jënd ko ñun sama nijaay day xëy liggéey ut lu mu am kii sama umpaañ moo yor kër gi mooy joxe dépense mooy def lépp déglu ko rek waaw maa ko wax loolu. waaw loolu baax na. ma ne ko demal ka ñëw Escania kër ba nga Njaay. waaw nga jox leen xaalis bi ñun soxlawuñ ko. ana bi. wax naa waa ji la ko yóbbu. mais on pense que fan yii nu muy toog ma ne na maa ko tëbëyee. mu génn si buntu kër gi. xaalis bi dem na muy daw. maa ko tëbëyee. waaw mbay ma sori bàyyi ma am sori bàyyi ma. ah béy bi nag man loolu tam yow it ay béy bi lan la. waaw waay waa béy bi. nijaay waay waay ba xale bi yow. nijaay nijaay waa béy bi lan la nag yow it nag. ay waay bul jooy nag yow tamit bul jooy ay waay béy bi. abonneel bul fàtte bés notification bi ngir ngay am suñu vidéo